waaye ministre d'état nag ministre premier ministre mënalu ko dara président rek moo tax gars yi léeg-léeg bu ñuy pré bu ñuy ànd ak président dañ ko naan man bëgg naa nekk ministre waaye ministre d'état xam nga lu tax bokkuñu parti te bëgguñu ñu gaaw ñu dàq ko te premier ministre bi mën na ko mere dàq ko moo tax dañ koy def ministre d'état moom lié direct ak président de la république la premier ministre sañut ci moom dara du ko digal du ko tere sañu ko bu ko neexee mu ne ko maa lank ki la nommé ma nommé moo tax ñu ne ministre d'état bu ko neexee sax mu bañ am benn portefeuille ministère benn benn nu koy waxee ministère bu muy bu muy gérer ministre sans portefeuille bu ko neexee président def ko ko Abdoulaye Wade nekkoon na ko waaw kañ ba mu demee ci Abdou Diouf fi ñu fekk. Abdou Diouf def ko ministre d' am boobu Abdoulaye Wade bañkat la parce que da doon bañ ñu gaaw koo dàq ñu def ko ministre d' kenn kenn nu ko dàq ko dut Abdou Diouf te bër bu set mu gisee ak Abdou Diouf moom lay neex rek mu ne ko bon doy na léegi maa ngay dem noonu la ci nguuru yàlla gi aktaab yii ñooy ministre d' état mafatihul kunuus yi ñooy ministre simple ñoo ñoo leen di jox ay ordre moo indi Cheikh na Tidiane yi bokkoon ci mafatihul kunuus yi ndax dafa gis infaaq ni meloon dépense di dépenser di joxe fii sabilillahi tiyaabo bi ci nekk mu gis ko ñaan yàlla bokk ci aktaab yi mafatihul kunuz yi bi mu bokk ci di chaise gis ne ñëlee leen di jox ordul mu gis maamam rasulullahi ne ko man duma ko ñuy jox ordul optewuma pour ñu di ma jox ordul te yëg naa ne yàlla binduma pour ñu di ma jox ordul man joxekati ordul la ndax yaa ngi koy déggee ca la ko alaaji Mansour wax wa wa aadamu baynan ba sëñ la ko sëñ Babacar si wax aaliman bi wilayati wa aadamu baynal maa'i wa tiini bële wa aadamu baynal nafsi wa nasab bu yee gën a garaaw baynal nafsi wa nasab yonent bi la xam nga foofu la wax voilà yonent bi la wax ne baynal nafsi wan nasab déglu bu baax yow mi lay déglu man huwa ma hiya nafs luy nafs lan mooy nasab bii mu ne baynal maa i wa tiini doomu Alaaji Maalik Jeey wax de Seydi Aboubacar wax de mu ne baynal maa wa tiini mu ne Cheikh si Cheikh Sidi Ahmad xam nga wilaayaam fi ko yàlla teg booba aadamaa ngi ci diggante ban ak ba ban ak bëlit lay firi baynal wa tiini yaa ngi koy déggee ca saar wa yàlla di wax xalaqahu min salsalin min xama in masnuun mooy baynal <laughs> yàlla musal xalaqahu moom aadama min salsalin min xama wa tiini boobu aadama ban buy rembi rembi la woowagul ban boo xam ne day reen bi reen bi poto poto poto poto buy ñeppax ñeppaxi ndox mi roogaatut mu ngi far te dëgërul booy tomb mu tomb boo bàyyee mu fut yàlla nee na ba ma ko defee noonu ba mu ne ba mu doy ma man yàlla min salsaal ma ëf ko rek mu nekkaat salsaal salsaal mooy loo xam ne boo ko dóoree nga dégg mu naan keng keng keng min xama in masnuun min salsaalin min xama in masnuun mu ne boobu nag la Cheikhu na Tidiane xam ne waliyu la dafa xam boppam boobu la Cheikhu na xam ne waliyu la diggante boobu nag moo tax mu sañ wax maamam ne ko man opté wu ma bokk ci ñi ñuy jox directive man ci ñi koy joxe laa war a bokk ndax yëg naa ne man yàlla bind ma pour ñu di ma sant man maa war a santaane maamam rasulullahi ne ko Cheikhuna Tidiane moo ko nettali ci jawahirul maani maamam Cheikhuna maamam rasulullahi ne ko mais maqaam bii boo ko xesee am dootoo mën a bokk ci ñële mu ne ko gis naa porox ndoll boo xam ne yàlla la ko bàyyil yow ngir yow ak moom loo bëgg ci moom mu defal la defal ma ko may ëwwal di aaxir ko may ëwwal di njëkk ku ko kimile di mujj ku ko kimile maamam laaj boromam mu ne ko yow loo bëgg bëgg naa ko bëgg nga mu nekk ko mu ne waaw mu ne ko bismillah moo tax Cheikhuna Tidiane nekk Mafatihul Kunuz bokk ci aqtab bi moo ko mos a kimile kenn dootu ko kimile ila yawmi yubaasuuna ca la joxe woon garanti nag ni ku ma liggéeyal man Seydina Cheikh doonte judduwoo ci yoon boo liggéey ma bàyyoo la ba tàbbal la àjjana ndax yow ma nadu kulla unaasin ñu ne ko bugg la bu la fekkeewul na mu ne na jàpp sama tarixa liggéeyal na ma boo liggéeyal ma bàyyoo ko maag moom bi àjjana buñ nee Chérif Ibrahima dootul am bàyyi ndax kenn juru ko woon na Cheikhouna yi mooy yëkkati loo xam ne maay bàyyam <laughs> Abdoul Abbas Ahmada Tidiane garab boobu li garaaw garaaw garaaw yàggu ci moo indi xat mi boobu à suivre <laughs> boobu à si de benn waliyu waliyu mooy nekk xutbu waaye yonent du nekk foofu laa jëm pour mu xam li may wax moom wóolu yu mooy nekk xutbu waaye yonent du nekk xutbu donte yonent nag moo supérieur aqtaab waaye xam nga lu tax ak yonent day jeex te àddina war di dox bu doon loolu bu du toon loolu rasulullaay kañ la dem aqtaab yi ñooy doxal lii rek la mu aqtaab yi ñooy doxal bi rasul yi demee ak mursal yi bu mursal yeeg anbiya yi demee hmm. aktaab yi ñooy doxal waay waay président bu fi newoon kañ premier ministre fii nekk hmm. wala président assemblée nationale waaye vide bi mënta am vide mënul am al ulama warasatul anbiya ma ñëw jëlee la ci ñaar nga xam moom mi may déglu ca Mauritanie mu xam li may wax ñaari yonent laa koy jëlal ñoo xam ne bañ nekkee donte yonent yëpp la nag waaye dinaa ko jëlal ñaar ñii parce que cent vingt quat mille yonent dañ bari te billaahi ñëpp xam naa leen waaye ñaar laa ko ciy jëlal yoo xam ne ba ñuy yonent xutbaan yegg ko ko yoroon te mu ngi fii ci alquran ji bu mënee yër na ko yër ka jiitu ma yonent yàlla Suleymaan ki ci topp mooy yonent yàlla Moussa mii may waxtaane yonent yàlla Suleymaan bi muy yonent xam nga kan mooy doon kan moo doon xutbul fardul jaami ci jamono booba xam nga kan la wa qaala indahu ilmun min alkitaabi ana aatihi bihi qabla an yartada tarfuk fa lamma ra'aahu mustaqiran indahu qaala haada min fadli rabbi li yabluwani a ashkur am am akfur wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi xese bu gudd la waaye ci gàttal yonent yàlla Suleymaan dafa dem Bilqis hudhud moo ko feeñal te hudhud picc la fa makusa gayra baidin qaala ahadtu bima lam tuhit bihi xubra wa jituka bi nabain bi sabain ah, bi nabain yaqin am na fa jigéen ji ñuy wax Bilqis mu ne ah mu ne ko billaahi li nga am am na ko nguur gi nga yor la yor te boobu Souleymane foogoon na ne kenn amul nguur ci àddina ko dul moom ndekete doom ñu jigéen a ngi existé boo xam ne mu nga dëkk ca Saba dëkk bu ñuy wax Saba min Saba in dëkk la min Naba in yaqin jëloon naa la xibaar ca dëkk bu ñuy wax Saba waaye xibaar bu wër laa la indil Souleymane mu ne ko am na buur bu fa nekk de billaahi la ma gis ca moom laa gis ci yow. nguur gi nga am la am gàngunaay gii nga yor sax la yore picc bii man ne hudhud am na picc mu mel ni man moom laa communiqué ba xam fu mu ne te lay sabab bi hudhud moo daan wan yonent yàlla Suleymaan fu ndox nekk te yonent lu mu bëgg am ko bu bëggaan jàpp bu jinne yi defee escale bu yonent yàlla Suleymaan defee escale jinne yi li ñuy bari bari xam-xam xamuñ fu ndox nekk ci jamonoom hudhud picc mu tuuti moomu boo demee ca Saalum moom la ñuy wax toq am ñuy wax Moussa Jubbure Moussa Njubbure ca Saalum Saalum ya Moussa Njubbure moom moo daan wàcc rek bu cobee cob cob ñetti yoon rek ñu xam ne fii ndox a ngi fi jinne yi gas yoon ci yàlla Suleymaan def escale ak tapis rouge bi bëgg a jàpp gisul ndox mu ne am na gisuñu ko mu ne bu ñëwee dina ma indi lay wala ma rendi ko jinne yëpp dégg jinne yi ne waaw kañ xuddóot moom jeexal na c'est fini balaa moo ñëw rek benn jinne euh, naar ko ko mu ne ah wax mu ne nee na dana la rendi wala nga indil ko lay wu bir nguur gu toll ni gi nga am am na musa Djibouré comme man gàngonaay gii nga yor bu mel nii la yor la ma ca gën a nag yow yàlla ngay jaamu ñoom jant bi la ñuy jaamu gëmuñ yàlla yoon ci yàlla Souleymane ne ko comment loolu bu mën a amee ci àddina bi tama yilif ko amee ci àddina bi te man Souleymane ma yilif àddina dinaa xool ba xam ndax li nga wax dëgg la inni mursilatun ilayhim këlee ko waxoon li lay wan ne ab sëriñ addiya baax na ci moom waaye bon na ci moom de Bilqis ba mu bëggee ñettu Suleymaan dafa ne inni ursila ilay eh, mursilatun ilayhim bi hadiyatin fa naadiru bi ma yarjiul mursalun ma xool ba xam yonent la wala du yonent bu dee bu dul yonent rek dina ko jël ma dal ci kawam waaye bu dul yonent daf may delloo bu dee yonent la rek daf may delloo si hadiya ji bu boobaa nag maa ngi yéen yëpp dañuy jébbalu ji ndax ab yonent dafa am doole ba bul xis toogee nag jël benn pierre bu tolloog karo karo la tollool waaw karo bu ëpp bi tuuti lay tollool ci or fekk ci yàlla Suleymaan wax na jinne yi nañ ko dajjil benn karo ci karoom yi ndax moo ñuroog moom ñu dajjil koy karo bi mu téyee bilqis ne inni mursilatu ilayhim bi hadiyatin danaa ko yónnee hadiya bu ko jëlee ma dal ci koom su ko jëloon nag ma xam ne ab yonent la ma jébbalu ji bu ñu xut hudam naawee ak karo bi ba yegg si tiim pale bi gis karo bi dajjeeku mu ne su ma ko ko joxee dafa naan fii laa ko jëlee mu ràmpal mu dugal ko ci mu yem mu ñëw yoon ci yàlla Suleymaan indi noonu laa la hadiya waaye dama koy bañ indi ndax dama gis mu niroog karaw bi fi woon mu ne ko dindi ko ba mu set dama lay won ne lu ngeen fiy indi am naa ko sama karo ngi nii delloo ci karo bi ne ko demal nga ne ko na jël hadiyaam te ñëw wuyu si ma nu mu gën a gaawee na ñëw wala bu ma ko fa fekkee dinaa ko faagaagal hudhud delluwaat moom hudhudam laa wax de delluwaat ne ko Bilqis nañ sunu wóor na kële ma gis ab yonant la du nitu ordinaire de gis nga buur foofu président yëpp ak buur yëpp war nañ ci jël leson dafa dajale staff am yëpp état major am yëpp généraux yëpp ñu toog mu ne inni ya ulqiya ilayya kitaabun karim fekk xuduut la yonent yàlla Suleymaan joxaat lettre ci xese bu gudd waaye dama koy dagg mu nank ko mu ne ko boo demee ba tiim ko sànni ko lettre bi dina ko liir su ko liiree nag lu mu tontu rek ma def xulóom ñëw ba rek ba ba tiim sànni ko ko moo tax mu ne il niya ulqiya sànneef nañ ma ab téere kitaabun téere boo xam ne kër yi karimun bu tedd la wa innahu lii mbir tey mbir li te wër mooy min Suleymaana mu nga jógee ci buur bu ñuy wax Suleymaan dib yonent waaye ndax lii mbir tey mbir ci biir téere bi bismillahi rahmaani rahim moo tax baraatun amul bismillahi rahmaani rahim boo jëlee basmala boobu dóor ko ci bopp baraa rek 114 basmala yi mat innahu min suleymaana wa innahu bismillahi rahmaani rahim xam nga lu ci suleymaan def gannaaw bismillahi rahmaani rahim aatuni muslimin jeex na salaam ñëw di ay jullit fermer mu liir ko ne moo gàtt ba dee mu ne leen day jullit yomb na di daal di dajale staff bi généraux yëpp ne leen lu ngeen xam ci lii sëñ bi baal ma naka laati kii di dem nii Balla maa ngi lay ziyaare bu baax waaw kañ ba baal ma àq ba pulo ci la bokk nit dañ koy yëg sama xel a faayoon yàlla def bi mu ko sànnee lettre bi mu ne état major am waaw léegi yéen lay laaj lan mooy seen xalaat ci li maa kuntu xaati atan amran hatta tashhadun mosuma def benn mbir lu dul diisoo na ak yéen mbir mi ngeen ci xam ñu ne ko nahnu uluu quwwatin gis nga armée du la wax mukk lu baax nahnu uluu quwwatin ñun armée bu am doole lañ uluu ba'sin shadid am nañ ngànnaay yu doy te mën nañoo xeex fanziri xoolal rek maada taamur loo bëgg ñu def mu ne uti ngeen ak man xalaat fii d'accord ma ñu ne ko loo d'accord ci la wax ne dama yónnee hadiya ji nag mu indi hadiya ji ba mu indee hadiya ji la xam ne yonent la yéen ci yàlla Suleymaan nag xam ne yàlla wax na ko ne nag léegi affaire bi réglé na day jébbalu si mu bugg koo wan kiraama lu gënoon gaaw rek mu ne yàlla indil ma li ma bëgg ci moom daf koy am ndax ab yonent la waaye moom it dafa dajale mbooloom ni Bilqis dajale woon mbooloom jinne yépp toog nit ñépp toog jinne yi leen mu ne yéen laay wax bismillahi rahmaani rahim mooy doxal lépp xamoo yonent yépp a ko amoon bismillahi rahmaani rahim ayyuhum aatuni bi arshiha qabla an yaatuni muslimin mu ngay départ di ñëw te vitesse bi muy daw mooy bi ma am trois cent quatre-vingt mille kilomètres par heure moom lay daw te balaa moo balaa moo <laughs> balaa moo balaa ngeen di dem mën naa yegg si te dama bëgg balaa moo yegg si ngeen indil ma tronam bi trône bi laa bëgg ngeen indil ma ko fii te da ngeen koy changer couleur bu ñëwee ma xam anahtadi ah, ndax dina gindee ko am kuntu min al dalim min al min al qaala ifritun min al jinni ifrit la tudd benn jinne bu tudd ifrit yëkkati loxoom ne ko ana aatiika biha mën naa la ko indil mu ne ko ci ban condition nga ko mën a indee parce que gaawal naa mu ngi ñëw ñëw te vitesse bi gaaw na mu ne qabla an taquuma min maqa min maqaamik fii nga toog di wax ak man soo jógee dugg ci sa chambre à coucher bi dellusiwaat balaa ngaa dellusi di toog di nga fekk ma indil la ko mu ne ko dafa yéex vitesse bi muy daw balaa loolu di am dana yegg si bëggu na boobu benn benn waa ji mbubb ngeta su gàtt bët ya xonk cur daanaka gémmiñ ngaa ngay bas-basi ak yuut boo gisee doo foog ne doomu aadama la mu jékki-jékki yëkkati loxo bi ndànk di ko di lox ndax ragal boromam mu ne ko yow looy wax te nit la di wa qaala ilmin min alkitaabi huwa alqutbu alfardu aljaami fi zamanihi loolu laa bëgg a wax kookoo doon qutbu alfardu aljaami ba moo tax turam ñëwut wa qaala indahu ilmun min alkitaabi yaani ummul kitaabi ana atika bihi mu ne ko yow noo ko mënee mu ne ko qabla an yartada tarfuk balaa ngay xeef bay xippi mu ne ko yow laa bëgg te kii ak yonent la xoolal diggante xeef ak xippi mu ne ko yow waxaatal ma dégg mu ne ko qabla an ya tarfada qabla an yartada tarfuk fa lamma ra'aahu mustaqiran indahu qaala haada min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur mu ne ko fi ngay xefee bay xippi dinaa la indil trône bi ak lépp lu mu tegal la ko fii mu ne ko mën nga ko mu ne ko mën naa ko ci kàttanu yàlla mu ne ko defal balaa muy xef bay xippi mu indi trône bi xam nga lu tax ñoom zamaanay dox ci ñoom doxuñ ci zamaan ñooy saaxibul waqt Cheikh El Hadj Omar moo tax borom ba ne ko yaa saaxibal waqti yaa Omar yaa Mansuuru ñoo ñooy saaxibul waqt waxtu mooy dox ci leer na yow mi nekk Mauritanie bëgg mu leer xam naa sa tur mënoon naa ko tudd waaye du ma ko tudd dama lay suturaal kooku mooy Cheikh Oumar kooka moo doon xutbul fardul jaami boo ñëwee fii ci yoon Yàlla Moussa Yuusa moo doon xutbul fardul jaami déedéet euh, waliyu xadir moo doon xutbul fardul jaami moo tax yéen ci yàlla Moussa dafa toog juróomi jamono loolu moom mooy li wér waaye li borom xaasiye indi dafa juum yéen ci yàlla Moussa dafa toog bis laaj boromam ku may doon mu ne ko waliyu xadir te boobu Yuusa mooy taalibeem bi ko daan gàddu mbuusam te Yuusa foogoon na ne moo koy doon yéen ci yàlla Moussa xala xam ne bu fi jógee. Yuusa mbëkkanteeg borom jamono day alku ndax ku mbëkkanteeg borom jamono tolox yonent yàlla Musaa ne ko nañ ko seeti yàlla ne ko xamal naa ko min ladunnaa ilman demal nga seeti ko ci gàttal loolu rek la waaye du leneen ki koy seeti ci charia la tënku ka muy seeti tënkuwul ci charia danañ ànd duñ ànd kii boo reyee nit da ko war a expliquer lu tax ñu rey ko kii yàlla ne ko reyal ku la neex maa ko rey lii rek la kii yàlla ko fi teg ne ko ku rey di ex na expliquer lu tax ñu rey ko bu fekkee dafa rey bakkan nañ ko rey bu reyul bakkan bu ko teyul na joxe diya kii constitution ak loi moo ko fi bàyyi kii il indépendant ci décision yàlla rek lay dox te yàlla faalun li maa moo tax nag mu bañ mu am ak Yuusa contentieux moo tax mu indi Yuusa moom la àndal boo boo gisee Yuusa moo gàddu mbuus mi def ci ñetti jën waas jën yi firiir ko def ci mbuus mi ne ko fuñ xiifee jox ma benn boobu yàlla nee na ko bu benn jën desee tefes ga ngeen di toog nga laaj ko jën wi aatina gada ana foofa la jënoo dem ci biir géej gi foofa la xadir nekk foofa la maawul xayaat nekk foofa ker boo ko xamoon boo ca asee naan sax dootoo dee yow te mu ngi fii ci àddina soriwul Égypte mu ngi fii ci àddina soriwul ay jamono la rek moo tax lii ñuy wax naan xadara baag ñii chaise ji dañ foog ne ca kaw la léeg mu nekk ci marché yii sax dégg nga wax bi qadir aatina li may wax alquran la aatina gadaana laqad laqina fi safarina déedéet nasaban suñ yoon yi dañ coono daf ñu ci dab fekk lekk na ñaari jën mu des benn bi yegsee ba ci tefes gi toog tefes googu fan la te mu ngi Égypte fan la ci Égypte fa la yonent yàlla mu yonent yàlla Yuusuf faatoo foofu barab boobu fa la yonent yàlla Yuusuf faatoo mu ngi ba Égypte fii may toog di wax ak yow majma al bahrayni lépp alxuraan la di yaay xam nag def say recherche rek fan la nekk yàlla dimbale la tubaab yi di def recherche ba defar avion dañ ñu gën yow boo ko defee recherche boobu ci yàlla yàlla dimbale la ittaqullaha wa yuallimukumullah jeex na taqwa la rek taqwallaahi la rek taqwallaahi nag huna huna fii ragal yàlla fii la Chérif bañ defaree avion ba pare dañ jeex na jeex na jeex na ci bàyyi yàlla lépp ba bëgg rek mu yàgg fi waaw waaw kon wala mu xadir la yàlla bëggoon yoon ci yàlla Moussa moo laaj boromam ne ko bu ma fi jógee ku may donn mu ne ko waliyu xadir te Yuusa moo doon taalibeem bi doon ànd ak moom mu ne ko da ut ñetti jën fiirir ko ba mu ñor fu ngeen sonnee lekk leen benn ba mujj bu ngeen ko tegee di noppalu balaa nga koo laaj dina génn topp géej gi waaw géej jën wuñ fiirir génn topp géej ko ba mu wow wuñ fiirir lakk ko ba mu wow mu génn topp géej xanaa yàlla kañ loolu ayatun min ayatillahi te xanaa moom mi ne seetaan nekk mu Mauritanie du nga dilli alquran ji di ñemewu ko weddi jëroo yi mu ne ko aatinaa xadaana laqad laqina fi safarina haada nasaba suñu yoon wi coono dabaat nañu ci indi benn jéeg mu jiix mbuus mi ne ko fa taxasa sabilahu fi lbahri saraban jën wa de moom faf na rëcc dem na ci géej gi hada ma nabari yéen ci yàlla Moussa ko fii laa soxla woon ndax fii lañ war a kaara bii fi lañ war fekk xadir te xadir a nga fa woon te gisuñ ko yàlla dindi muraay gi fekk xadir tëdd sangoo mbàjj su woyof tànk yi weex fur yéen ci yàlla Moussa ne ko pëkk-pëkk mu jóg ne ko lan la moo ko tey di ah day naqari naqari lu deret lan la mu ne ko xam nga jógal rek yàlla ma wax naa ñëw ci yow seet si la ñu waxtaan mu ne ko luy waxtaan wi mu ne ko tegal ma naqari deret gi fële dama bëgg ànd ak yow xool looy def loolooy wax bi hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushdan du pour moom pour Yusha du pour moom rushdan tanwin la pour Yuusa la waaye du pour moom ndax moom huwa rachid Moussa bu rus bu amul rusdan ku koy am kuy am rusdan ku am Yuusa tax ci lañ dugg gaal gi muy toj gaal gi moom xadir waliyu xadir rombati fi ba dem yonent yàlla Muhammad ko wax salaay sallam waaw nee na fu mu romb ba mu ne te fu mu romb jotaay ba na ko alhamdulilah rabbil yonent bee ko wax waaw mu jël marto fekk moom it mu ngi muus di génnee benn mbuus naan teg teg yonentu yàlla Musaa ne ko da ngay toj gaal gi ngir labal ñu a xaraqtaha li tu li taxriqa ahlaha ndax dangay ngay toj gaal gi pour labal la laqad jita shay'an nuquran yow li ngay def dañ ko sib yàq kenn du ko def gis nga baat bi mu indi dañ koo sib mu ne ko waxoon naa la bu ma ànd yow bu ma laaj yaa ngi may laaj mu ne ko baal ma dootuma la laaj ñu wàcc gaal gi rek mu génnee mbuus mi jaasi ju ca newoon benn xale bu rafet ñu dajeeg moom sept ans la am rek mu kuttu bopp bi bopp bi daal di xale bi di cet ceti mu ne ko moo maadallahi aqatalta nafsan bi xayri nafsin laqad jiit shay'an nukuran gis nga baat bi mu indiwaat lu xaraam sañu ta noppi parce que charia ko fi teg kii bu ko neexee jëf ndax yàllaa ko ko wax mu ngi mel ni rek bi yonent bi di rañaan malaaka yëpp naaw uti ko ba mu des benn malaaka li yonent bi di dem yëpp benn malaaka la dajeel muy xotti asamaan yi di wàcc ci suuf mu ne yonent bi ne Jibril taxawal parce que moo ko commandé Jibril taxaw mu ne ko laajal ma sa mbokk mii lu tax ñëpp jëm kaw moom mu jëm suuf te yonent bi nee na malaaka moomu li ko dalee ci jundo xam boo doon misaal ba ci kaw bopp bi lépp glace la li ko dalee ci jundox bi ba ci suuf ci tànk yi boo doon nit lépp safara la mu ne safara si mënta fay glace gi glace gi mënta fay seeyal safara si xanaa loolu gën a yéeme ko commencé ci jundox bi mu ne bu doon doomu ci mbopp bi lépp glace la li ko commencé ci jundox bi ba ci tànk yi bu doon nit la lépp safara la mu ne safara si glace gi mënu koo seeyal te <laughs> safara si it mënut fay glace gi mënut a fay safara si safara si mënut a seeyal glace gi température boobu la yàlla bind boobu malaayika mu ne ko yow waxuma sa bind bi la yàlla bind foo jëm te ñëpp jëm ci kaw mu ne ko ah wa fi ilaahun wa ilaah mu ngi fii ci kaamil bii mu ne ko ki la woo ca kaw moo naa ko fekk daar daar ci suuf yaa nga jëm ca arash ak ba ca gannaaw kursi yu ba ca gannaaw sidratul muntaha fa nga jëm mu ne ko man fa ma jëm weesu na juróom-ñaari suuf te moo ne naa ko fa fekk keroog la yàlla wax ne wa fi wa fi samaai ilah wa fil yàlla ne man ni ko woo ca kaw maa ne ci suuf te maa ngi wax ak moom ca kaw di communiquer ki ci suuf man yàlla en même temps même recevoir waaye malaaka boobu xam nga kan la nañ ko bàyyi dinañ ci ñëw lu tax yonent bi jëm kaw mu jëm suuf ci yonent bi la bokk huwa al awwal wal aaxir wa zaahir wal baatin wa huwa bi kulli shay'in alim ci yonent bi la bokk <laughs> rasulullahi la kenn xamul ku dul yàlla mi ko bind moom rek a ko xam ba reyee xale bi ñu demaat ba ci benn dëkk ñaan ndox ñu lank ne duñ leen may ñu gis miir bu waaj a daan yonent yàlla Moussa ko nañ sëmmee ku nekk mënee ndax miir bi yàlla xamal na ma ne walul xadir ne ko nañ sëmmee ku nekk mënee te waxagu ko lu xew di ñu nekk mënee defar miir bi ba mu ne cocc rakiste ko defar ko ba mu ne cocc te boobu miir baa ngi waaje daan ñu ngi ko ruqandeeg ay bant defar ko ba mu ne cocc yàlla Moussa ne ko gannaaw dañ leen ñaanoon ndox ñu bañ nañ leen fayeeku ñu ñu mën a naan mu ne ko haada firaaqu bayni wa baynik bii mooy suñ taqali ko laaj nga ma ñetti question te noonu naa la bul ma laaj bàyyil ba ma wax la mu ne ko waa ma safinatu gaal ga mu ne mu ne ko ñaari miskina ko moomoon am na ci min waraihim dama koy tënk rek buur a nekk ca kanam fa añ doon teer buur a fa toogoon di xaar goo gaal gu rafet bu ñëw bu bees mu confisqué ko te bu gaal gi yeggoon ci état boobu mu nekk état bees boobu buur bi daf koy confisqué miskin yi dootuñ am lu ñu dundee moo tax ma ayibal ko dóor ci ay godoron bu ko gisee ne ah kii gaal gu màgget na bàyyi leen ñu mën a dund mu ne ko xale dina rey mu ne mu ne ko yàlla ma ne gaawal rey ndax bu baayam màggee bu màggee rek day dugal baayam ak ndeyam ci kéeféer waaye boo ko reyee dina wutal ndeyam ak baayam beneen doom bu ko gën mu ne ko miir bi may ñu yëkkati maag yow ñu laa ñaan leen ndox ñu bañ mu ne ko ah mu ne ko gis ne miir bii kanzun lahuma dafa miskin boo xam ne si baayam bi muy faatu dafa julli ñaari ràkk ne ko yàlla awma doom am naa doom gone la te alal jii ma bàyyi yow rek laa am sàmmal ma ko ba màgg nekk kilifa nga joxal ma ko te bu wër mi daan woon ñu gis wurus wi jël ko waa dëkk bi gis ko jël ko ñu tabaxaat ko fa iza jaa wa'du rabbi mu ne ko ba digg ba ñëwee rek miir bi daanu ñu jël seen alal dem mu ne woon ci yàlla Moussa nag yow xanaa kañ da gaaw fàtte rek waaye ñett yi dab na la yàlla def ko ishaara ci yow mu ne ko li ma def yëpp nag defuma ko yow yaa ko def mu ne ko gaar gi ma doon toj mu ne mu ne ko looy lagal looy ragal a lab ndax bi nga juddoo nekk liir bu tooy xepp dañ la daaj ci kees sànni ci géej gi ngay tëmb wa kay fa bi nga màggee looy ragal ndox <laughs> dégg wala fen mu ne ko bi ngay liir sa yaay ragal firawna rendi la uh-huh. daf la jël daaj la ci kees def ci ay laytaay sànni la ci géej gi ngay tëmb ba kër firawna kala sàmmoon moo ñuy sàmm rek yow itam mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko xale bi ma rey naa mu ne ko da nga fàttali ko xibtu yi ba mu ne ko fa la jógee di mu ne ko ba ngay yaa xibtu yi bi ba ba nga koy atte fa wakadahu Moussa fa qadaa alayhi daf ko jeñ rek ndax doole ja mm-hmm. mu dee mu ne ko yow it di mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko miir bii ma yëkkati miir eh, bii ma yëkkati nga ne nañ laaj fay mu ne ma ne ko mu ne ko ba nga doxee juróom-ñaari fan jógee Misra di dem Madyana ca Suaybu fa tab fa lamma tawalla ila dilli qaala rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir wa jaat ixdaahuma tamsi ala istixyaain qaala inna abi yaduuka li yajziyaka ajra ma saqayta lana mu ne ba nga yeggee la waxoon in ajriya illa ala allah ba la bëggee fay da ko ne ñun duñ jël pay suñ payang ca yàlla noo bañ a jëlee pay foofa di jëlee pay fii jeexul mu ne ko lii rek la li ma def yëpp yaa ko moom man moomu ko ci sa compte lañ koy versé kii xam na koy Moussa doful wala yu xadir dara dalu ko xam na ne yonent yàlla Moussa ko supérieur Yuusa la bëggoon mu bañ a am contentieux ak wali yu xadir moo tax mu doon jàngal Yuusa Yuusa la doon jàngal moo tax bi yonent yàlla Moussa demee Yuusa dafa tafu ci wali yu xadir bu waliyu xadir jeexalee mission am ni ko Cheikh Umar jeexalee la ko jox waliyu la ko jox Yuusa mu nekk xutbul fardul jaami mais bu woon ci Yàlla Isa ñëwee Yuusa dem na mais waliyu xadir des si noonu mu amee waliyu xadir di dund bu ci moom yonent Yàlla Isa mu ngi dund di Isa Fay sa torondoo mu ngi dund di ku ne dee na rek génn nga ci lislaam ku ne dee na rek génn nga ci lislaam yéen ci àllah isa xayyun fi samaai saani mu ngi ci asamaanu ñaare moog yaxya doom bàjjanam lu tax asamaan yëpp benn fa nekk bi yonent bi di rañaan na dem ca eh, muxtaarul ahadis da dana ko fa fekk muxtaarul ahadis xadis bi yonent bi di nettalee salaay sallam rañaanam bu demee foofa dina ko fa fekk yonent bi bi mu demee asamaanu benn aadama la fa fekk ñaar Isa ak Yaxya ba ci juróom-ñaareel mu fekk fa maam Ibrahima asamaan yëpp benn benn asamaan bu ne benn yonent fa nekk lu tax nag asamaanu ñaareel bi yonent yàlla Isa ak Yaxya ñoo fa nekk parce que yonent yàlla Isa deewut day delsi te asamaan bu vide bu delsee Yaxya des fa. nii nga xamee ne wa innahu min suleymaana wa innahu bismillahi rahmaani rahim boo jëlee la ba dóor ko ci baraatu mu mat wa hakada fi samaa'i leer na moo tax yonent yàlla Isa day del si deewut yonent bee ko wax te alxuraan nettali na ko wa maa qataluuhu wa maa sallabuuhu bal rafaahu llahu ilay xat la yàlla wax kenn reyu ko kenn daaju ko yàlla ne maa ko yëkkati beneen bi mu ne bal shubbiha lahum bëkk néeg bi ko doon jaay moom la yàlla soppi mu niru Isa ñu rey ko waa bëkk néeg bee ko jaay waaw moo tax bëkk néeg yi mooy bukki néeg ndañ rek kenn ba si kañ démb wax nañ wax bu reegu sax mu ne ah, kooku bàyyam da doon dóor billaahi dé man ca ci nga xam ne Cerno Basiir lu ne la xam te tuddoon na ma tur moo tax nit ñi nañ wattandiku man li ma xam baaxut di wallahi déet Mansour a ngi nii Sayid Gueye a ngi nii Serigne Souleymane Samba ngi nele Aliou Gaye a ngi nele mu ngi toog bi ko Thierno Bachir di wax mu ne kooku bàyyam da daan dóor di maa ko tere dóor waaw mu ne moo tax moom ma ne ko bul dóor ni sa bàyyi daan dóoree yow waral sa kurus rek te xam naa ko ah docteur Yacoub waaw ñoo ngi la tëggiku nañ wattandiku nañ wattandiku nañ wattandiku wa yuhadirukum allahu nafsahu waaw moo tax eh, waliyu xadir mu ngi dund yonent yàlla isa mu ngi dund day dalsi si te pour mu ñëwaat yàggatul te yonent bee ko wax yonent bi saai sallam moo ne mu jug jamono dina del si takk fi jabar am fi doom door a faatu ñu ne bu ñëwaatee nag ci cadre lan lay ñëw ci cadre yonent laa bi cadre l ndax li ma leen waxoon ci njëlbeen mooy dellusiwaat wilaayatu wa anna al walaayatu lillahi al xaq ak wilaaya moo jiitu nubuwa nubuwa buñ ko dindee nga faatu jeex na ëllëg lañ la koy delloowaat wilaaya gi nag fi lay des wilaaya gi du dem wilaaya gi fi lay des moo tax yoon ci yàlla bu Isaa bu ñëwaatee ci cadre wali lay ñëw ñett la fiy fekk moo tax Cheikh Sidi Ahmed Tidiane wax ni na ngeen bég bi ngeen di dégg mujjug jamono sama taalibe lay doon ci sama tariqa lay tënku ñu ne yonent bi koy mahdi mu ne Muhammad lay tudd ndeyam lay tudd baayam Abdullahi lay tudd Chérif lay doon Xasani lay doon Makkatal Mukarrama lay juddoo. sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag bu juddoo ba dund lu fanweeri at yu teg ci la yonent yàlla Isaa di ñëw mu ne mu koy fekk Damas moo tax ñi ñu tojee siiru siiri siiri c'est pas par hasard balaa ñu koy defaraat ba mu ne cocc yonent yàlla Isaa ñëw fi ak lan lañ wax deux cents ans kenn mënu ko defar buy jag mu yegg si maa la ko wax siré gii la yoon ci yàlla isa di wàcc ca jumaa ja ca sooroor bu weex ba rasulullahi ko wax waxtu timis la ko malaaka yi di boq mu wàcc fekk mahdi yi di jiite timis bëgg a reculer ndax yëg na ne yoon ci yàlla isa moo ko supérieur yoon ci yàlla isa jeñ ko ne ko gee laay jiite buñ sëlmalee timis ca la ñuy waxtaan seen discours bi fekk ma liyu euh, euh, mahdi yu mu ngi yor benn xeer xeer boobu min baqiya baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna taxmiluhu almalaika alquran laa ko wax de xeer woowu nag moom la mahdi yu di def ci mbuus mi moom la ñuy reyee masix dajjal moo tax yonent wax ne nauzu billahi min fitnati alxayaati wa min fitnati almamaati wa min fitnati almasiix dajjal ñu ne ko kuy masiix dajjal mu ne benn bët lay yor ci jibi lay nekk benn doomu aadama la waaye benn mbindeef la waaye benn bët lay yor ci jibi lay nekk tour du monde lay def makkatal mukarram rek la madinatul munawwara rek la mënta dem waaye tour du monde dina ko def ci ñeent fukki fan dafa war lu mel ne àjjana ci ndeyjoor yor mel ni safara ci càmmoñ bu ñëwee ne la weddil yàlla ma dugal la àjjana soo tiitee rek mu ne la naxee mbaay maag yooyam nee na nag ci fitna boobu nit ñi di nekk tiitaange googu mu ne ba sëlmalee nag ca lay waxtaan ak yoon ci yàlla Isa ñoom ñaar waaye des na benn tey li mu bëgg a wax de ca la ñuy waxtaan ñoom ñaar solution bi comme suñu sëriñ Cheikh Sidi Ahmed Tidiane nee na mahdi yu boobu ci taalibeem yi lay doon ku koy jox wird woo Omar al Fuuti yu kañ man maay wax ak yow kuy joxe wird nag yaa ngi dund ma jox ko la boobu preuve yow Mauritanie leer na de yow it leer na de kuy joxe wird yaa ngi dund te Seydina Cheikh moo ko wax te démb li ma ñëkk a nettali li Thierno Bachir wax démb ko wax kuy joxe wér yaa ngi dund wala dee nga yaa ngi dund yaa ngi dund yaa ngi dund ku ñi di xeex yaa ngi dund wala dee nga yonent Yàlla Issa yéen Mahdi seexul Cheikh Al Hadj Omar ñooy ànd timis buñ ko jullee gee julli gee fajar julli fajar takku tisbaar julli tàkkusaan euh, tisbaar julli tàkkusaan diggante tàkkusaan ak timis ci lañuy rey masiix dajjal bu ñëwee ba ko yoon ci yàlla Isaa ne ko mu nga mahdi yi jël xeer bi jox ko yéen ci yàlla Isaa jam wa maa ramayta is ramayta walakin allaha rama nee na bu ko ko dóoree mbëmm foo toll ci àddina bi di ko dégg mbëmm ji nee na xaacoom ak deyam foo toll ci àddina bi mu ne di ko dégg rasulullah ne foo toll di ko dégg boo amee nopp rek di ko dégg mu ne ku tëx sax dina ko dégg garab yi sax dinañ ko dégg mu ne ci la ñuy rey masiix dajjal mu ne dajeewaat nag réformé waat àddina defal constitution bu dëgër nee na def tour du monde ñoom ñett tour du monde boobu mu ne buñ defaraatee àddina ba mu ne cocc mu ne dina am juróom-ñaari at yoo xam ne di nga gis gaynde gu jógee ci àll bi ñëw di foon béy yi ci biir kër gi ndax maandu rasulullaay wax de mu di nga gis gaynde gu jógee ci àll ba ñëw di foon béy yi ci biir kër gi di leen ray delluwaat mu ne dina gis till guy doxante ñëw ba ci gétt gi foon xar yeeg bëy yi delluwaat ndax màndu mu ne jaan du màtte kenn luy gaañ du gaañe luy màtte du màtte juróom-ñaari at lépp nekk ci justice ak lu yàlla bëgg mu ne waaye su juróom-ñaari at yi di mat rek yonent yàlla Isaa faatu mu ne bu faatoo nag ñu ngi koy denc si fii ci sama wet yow li ngay déglu ca Mauritanie boo demee yonent bi waxal boppam de nee na day faatu kon kooku faatoom leer na wala déet moom Mahdi seen faatu leer na mu ne fii lañ koy denc ci sama wet demal ci Medinatul Munawwara premier pavillon ku fa ne rasulullah deuxième pavillon Seydina Aboubacar troisième pavillon Seydina Omar deuxième euh, waaw troisième pavillon Seydina Omar am na quatrième pavillon bu fa ne kenn newu fa c'est réserve pour yéen ci yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam pavillon la comme pavillon yi ba demal nga yër ah. xam nga lu fa ne fi may wax ak yow hmm. boole sayyidatuna Fatima yi ñoo fa ne ak ay cinam ak yenn ci ndesiti bagaasam yi moo fa nekk moom lañ fa denc fii may wax ak yow moo fa ne foofa lañuy ñuy denc yonent yàlla Isa ibnu Maryam yonent bi nag nee na juróom-ñaari at yi ciy toppaat hmm. amul jàppal ma sa ku man sa morom duma yàlla jéppi àddina bi tukkal ko del siwaatal xutbaaniya gi du waxoon naa la juróom-ñaari xutba juróom-ñaari mafaatiwul kunuus juróom-ñaari ati bekkoor juróom-ñaari ati duma sab a baqaraatin simaanin yaakuluhunna sabun ijaafun sab'a baqaraatin ya'kuluhunna sab'un ijaafun wa sab'u sunbulaatin xururin xudurin wa uxra yaabisaat sallallahu alayhi wa sallam. salaamaaleykum wa rahmatullah. ay tafsir am ah nii laa koy tëjee ba ba àjjuma rek incha allah yal na yàlla dolli sutura waaw ñu ñu ñu waaw nañ julli rek nañ julli nañ julli waaw incha allah danañ ko wax. nañ julli nañ julli nañ julli